numérique au service de l'agriculture dañu ñëwoon tey jii fii nag di ci benn forum boo xamante ni euh, DER/FJ def ko organiser ak ay partenaires am partenaires yi nag di benn programme bu ñuy tuddee di fois di up programme bi nag l'Union européenne Union européenne moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko créé te ki koy exécuté tey jii di partenariat bu mu am ak coopération luxembourgeoise à travers LuxDev DER/FJ nekk tey jii structure état bi nga xamante ni mooy dawal programme bi. programme bi nag dafa amoon phase yu bare bu njëkk bi moo doon taxawu ay entrepreneur yu ñu wàññi yoo xamante ni tey jii ci nooru Sénégal dafa am nag fu zone zone yoo xamante ni fa la projet ba nekk ñu jàppale leen renforcer leen maanaam dooleel leen ci seen i activité moo xam ci moo xam ñi nekk ci mbay mi la moo xam ñi nekk ci production bi la moo ne xam ñi nekk ci embouche bovine ci lépp lu ñun ci nekk ñu fexe ba jàppale leen mais jàppale boobu li ko utaleeg yeneen façon yi ñuy jàppale mooy accompagnement technique bi c'est que dañu jël numérique bi ñu placer ko au cœur de li ñuy def mooy mooy lan bu ñu bëggee suñu mbay mi développé tey jii ñëpp xam nañ ni que souveraineté alimentaire yu ñu yitteel la suñu réew yi loolu mooy lan mooy wàññi li ñuy jënd ji ci biti di bay di dundee di produire di dundee lépp lu ñu fi def rek ñu dundee ko donc loolu pour ñu yegg si mu gaaw il faut que ñu boole ci li ñuy wooyee innovation boole ci technologie boole si numérique mooy programme bii nag moo ñu permettre tey ak suñuy partenaires waaye di ñu ngi nii taxaw sama wet am na yeneen partenaires yi nga xamante ni ñoo fi nekk mooy CETIC mooy euh, mooy mooy concret ñoo xamante ni sax suñu ay partenaires stratégiques lañu ñoo ñu permettre tey jii ñu mun a accompagner un accompagnement comme ni ma ko taamoo di wax. sur mesure ndax lépp luñ ci jubli rek du financement rek ndax DER dañoo taamu di wax tamit financement mais dañuy wane ni ni li parcours entrepreneur la boo xamante ni moo ñuy permettre ñu accompagner enveloppe bi mi ngi tolloon si cent vingt 325 000 euros tey ji phase pilote la mais am nañ ci yaakaar phase bi ci topp tey jii mooy yóbbu leen tey jii Luxembourg am na 14 entreprises agritech yoo xamante ni identifié nañ leen si ñu toll ci phase accélération dinañ leen yóbbu Luxembourg ñu gis technique yi gis namit foofu nu ñuy liggéeye waaye bu weesoo loolu du ñu teggi suñu loxo parce que li ñuy woye suivi après bi dafa am solo torop pour mun a capitaliser ci li nga xamante ni moom la ñuy xaar si ñoom gis nañ tamit ni que li manqué woon avant ci suñu agriculture bi mooy daawuñu indi ay solution innovante maanaam dafa amoon ñaari monde yu daan côtoyante nii rek dañ daan dox mais ànduñu woon mooy li ñuy woowe numérique bi d'un côté suñu secteur traditionnel bi notamment l'agriculture avec le grand à pêche élevage ak ak mbay mi ci boppam da daan dañ daan dox ku ci nekk sa côté te bu ñu boolewu bu ñu lëkkaloowul solution du am tey ji nag loolu moom am nañ ci mbégte bu bare ndax projet bi wan nañu ni que c'est possible te li ñu ciy séntu ñun tamit ku mel ni instrument bu mel ni DER bi ñuy wax ini booy accompagner initiative entrepreneuriale mooy nga gën a accompagner ay jeunes ay ndaw ay jigéen fii ci Sénégal di wane tamit ni DER c'est le faire faire DER-DAFUL dafay lëkkaloo avec des structures d'accompagnement qui lui permettent tey jii mu jouer rôle am pleinement di catalyser écosystème bi pour que ñëpp mën a liggéey ensemble plateforme yi fi existé ñëpp bu weesoo programme bi tamit am na yeneen yoo xamante ni lal nañ ko fii yoo xamante ni tamit dañ ciy boole ñëpp les entreprises locales les structures d'accompagnement les partenaires ñëpp tey jii dañ ciy war a jàpp parce que xam nañ ni que suñu avenir au-delà de le dire mooy jëfe ko tey jii ndax mbay mi am na fi sens am na fi rôle bay dundee te loolu pour y arriver il faut aller vite et pour aller vite il faut y allier des solutions innovantes te ci loolu la ñuy nekk merci beaucoup.